<laughs> non indirect. je complète quoi. <laughs> ci wax parce que titre kii bi euh, moo ci ñëw sànq l'observateur di wax ne am na ancien ministre yoo xamante ne gis nañu ni seen tànkang ci euh, kaso bi euh, junj yooyu rek la ci def sans pourtant entrer dans les détails ci kaawu. Euh, jéegi job bi nga indi moo ñu servir prétexte ndax sànq moomoo mi ngi laal ni entre autres xëy na yi ñu koy toppee bokk na ci trente millions yooyu ñu remettre en cause dépensé nañ ko amul ay pièces yu ko yu ko justifié oui euh, loolu soo ko boolee contexte bi nekk contexte élection ñu ngi jëm xam nañ ni ku doon député da ngay am immunité parlementaire ni ci l'observateur doon waxee mooy ne xëy na dañ cee wëgg a langaamu mhm. boole ko li euh, les tenants du pouvoir di annoncé jamono yi taxaw haute cour de la justice bis bu ñu amee majorité mhm. oui ku ci taqee laale dem élection buñ la bu ñu établir na def nga loo xam tegul ci yoon mhm. humidité bi du la protéger waaye dina yéexal machine bi mhm. humidité mënut a yéexal dara hmm. ci bi ñu amee majorité assemblée nationale ñi ko fi nekk di gouverner am ko du yéex dañu gi gaaw fàtte immunité parlementaire nekk loo xam da nga ciy taxaw ñàpp du dañ hmm. Ousmane Sonko da nga fàtte très rapidement ci ni ko nab très rapidement ñu dindi malaanu kiiraay bi ci saa si def ko mode fast track ne perte na immunité parlementaire am tey xam nga yow sax yaay wax ne am na ñoo xam ne dañ ci ngoy wala dañ ciy làqatu pour mën am immunité parlementaire hmm. man jàpp naa ñoo sax dañ koy gént waaye duñ ko am duñu am immunité déedéet bala nga am immunité parlementaire day fekk ñu fal la nga nekk député justement leen di may unité parlementaire tey ba tax tey état bañ leen a topp wala ci seen yenn yoo xam ne defoon nañ ko muy ay présumé de détournement de deniers publics loolu day fekk ñu fal la nga dem assemblée nationale. am malaanu kii raay te mun nañ faa bañ a egg ci bu nit ñi amee xel mën na yombalal liggéey bi ñi fi nekk. kaar leen laataa ñu dem. ah mais soxlawul kaar. lan temps wu justice ak temps wu ñu bokkul. Ah. tey ku sañoon tey tey tey boo defee nit léegi léegi léegi mu faj ko. faaw nga dem porter plainte xaar ñu ubbi enquête xaar ñu xool ñu ci bokk ak ñu yi kii demewul noonu. Hmm. ñu bari dañoo toogoon di wax naan noo nguur gi dafa yéex affaire yi dafa yàgg. toog nañu yàgg d'autant plus que yaa seen ba leen di commencé woo yàggul. Hmm. te kuñ ci woon ak dem nga wuy ji. am na ku sañ a résister. di nga dem ci plateau yi di nga wax di nga vidéo waaye kuñ ci o par force da dem uy ji kon xam nga lu ñu koy wax naan euh, euh, force reste à la moo nekkee noonu. Hmm. léegi li am mooy. Euh, nee nga l'observateur dafa wax ne am na ñenn ñoo xam ne euh, seen benn tànk mu ngi ci kaso bi. loolu ku ko wax ku ko waxu ñëpp xam nañ ko. am na ñoo kaso ma ne. ñi nga ci xam laa ci xam. man mii ñi ci sénégalais yi xam laa ci xam. ñi ñu ci jox alalu askan ñu jël ko sàcc ko détourné ko ñooñu lañ ci xam. Hmm. képp ku ñu takkaloon dama tàgg nattal la budget ne la lii da nga ko war nga détourné ko ko jabar dem ci Dubaay ubbi ci magasin baa nga ubbi ci nga yaa xam nga ne da nga ci defar tool <laughs> dem di ko def ay ay ay blanchiment de capitaux blanchiment d'argent ñooñu ñëpp li nga ci xam laa ci xam sénégalais xam leen ak borom peut-être nga xam ne bañ leen waxee jël leen xaalis bi def ko pour askanu Sénégal bu seen tali eh, tali yi baax mm. ñi ñu yox leen xaalis bi ne lii eh, ay ay fonds la pour eh, askan bi nga jël ko def ko sa fonds politique bopp toog di ko may say militant nit ñi dina la nga jël ko di ci voyage di def lu la neex ñooñu lañ ne seen tànk ngi ci kaso bi kenn yéenewul kenn kaso hmm. bu ñu sañoon kenn du dugg kaso waaye da nga nekk ci dëkk yoon yow mi ñu sàcc sa alal mënoo fayul sa bopp da ngay bàyyi yoon defal boppam hmm. ba ñu fi waxee nag ne dañooy euh, euh, retour euh, haute cour de justice de justice El wax na ko naar bu ndaw lu mu tudd di wax ca barkeel bi la ko dégg ah, c'est pas El Malick qui décide que ne haute cour dafa dafay am waaye sénégalais bu ci nekk tey sa bëgg-bëgg mooy xam nga lan hmm. ñi nga xam ne dénkoon nañu leen ñu ñëw setal seen bopp ñun ba tey kenn accusé wu leen ne leen yéen ay sàcc ngeen naam am na ñoo xam ne ay sàcc lañu kenn accusé leen ba pare ne da ngeen def détournement de deniers publics naam def nañ ko mais nag ñoom li setal seen mbir ak li seen bopp ñoom ñu mën a siggi ci Sénégal xam nga mooy ñoom sax ñoom ñoo ci war a gën a yàkkamti ñi ñu leeral leen yow yaa ngi koy wax kaawu jéegi jóob ñun waxuñu dafa sàcc de dañu dañ koy toppee détournement wala dañ koy toppee escroquerie yaa ngi koy wax léegi inaan a fallu pour ñu convoquer ko mu mën a dem def passation de service te moom damay def passation de service def ko ak kam ko wala dañ ko batale mhm. jox ko keneen ne ko joxe leen ngay kooku mu moom kooku yóbbu ko mhm. xam nga yooyu yëpp mun nañ ci bañ a egg yow dangaa yoroon sa yorin jeex na mënoo fi toog peut-être que nag dem bi bett na leen parce que xalaatuñu woon ne moment bii lañuy dem xalaatuñu woon ne tey jii euh, ku ci mel ni euh, euh, ki nga koy waxee xaw ma buur xaw ma lan dana ñëw di nekk ay test de liste pour dem assemblée nationale ah. lan la mën a rapporter sénégalais yi ku mel ni Macky Sall. waaw naam sax moom poste bi moom ñoru ko. Macky Sall. waaw wàcc ci réew mi. waaw militant bi dar ko. mu yegg si. yéen la bienvenue dëgg la woo troupe yeeg militants yi. waajal leen élection yi na ak ya daan am. waaw Pape mu war a wàcc ci langue gi. waaw def campagne. wër réew mi ak ni mu xam mi yow yow li ngay wax nii. man gëm naa li wax ni Macky bu toogee di seetaan nii. yow bu toogee nii di la seetaan Macky Sall ree mooy ni da ngaa wax da wala baal ma de li may wax ni wax ma la wax dana xoolal ma dof bi li muy wax man man sañ naa ñëw Sénégal di wax ak sénégalais yi dana xoolal dof bi maa ngi koy maa ngi koy defloo ci xelam keneen man dinaa ñëw baat campagne. loolu lay wax Macky Sall tête de liste. waaw lu rëy la loolu. nga ni Macky du ñëw ci réew mi campagne ànd ak ay ñoñom. lu rëy la waaye lu waaye di la. jàkkaarloog Ousmane Sonko ak i ñoñom. jàkkaarloog Amadou Ba euh, mii nga xam te tamit tenir na ko tet Pape Ousmane wane ba tey mu ngi fi ay nitam ñu ngi fi Pape ñenn ñee xalaate neneen rek waaye am na ñenn ci réew mi ñu gëm li muy def bàyyi sa xel gëm ay ñoñom bàyyi sa xel nga loolu du am bàyyi sa xel mi ngay fooy rendez-vous boobu noonu ngeen ne yow loolu li ma la waxoon loolu laa lay waxaat mooy dama ne ñun suñu bëgg-bëgg mooy Macky Sall ñëw ci réew mi baat campagne man bokk man bokk naa ci ñi nga xam ne loolu neex na leen bokk naa ci ñi nga xam ne su may nettali ci sama parcours bëgg naa wax ne kat ñëwoon na que ne Macky ñëw na baat campagne ndax moo nekkoon tête de mais yow tey boo ñëwee ne Macky Sall jàkkaarloo ak Ousmane Sonko. Hmm. waaye yow tam nag loolu du combat nag alaaji. du combat. Macky Sall kañ la jàkkaarloo Jomaay la jàkkaarloo Jomaay Ousmane sonk moo ko jëloon yabal ko hmm. mu gagné ñoom ñëpp tey ka ka yob woon moo ñëw nekk tête de liste. waaw bu ñu parler de duel yéen ban duel. ngeen di wax wane ma Amadou Ba. Amadou Ba mooy Macky Sall. ah mooy Macky am na ñu doon wax ni du candidat am ma ne tànn na ko malgré lui. déglu ma loolu ñoom seen seen seen seen biir néeg la yem. Ah. tey gestion wu Macky Sall mënoo cee génnee Amadou Ba moo nekkoon premier ministre am moo ko daan digal muy def. ba muy demee ba jaaxle ci campagne ba. ba ay ñenn di ko tongal nankan doo fi candidat yi dafa dagg campagne am bàyyi fa ñu mu àndaloon bàyyi fa stafam bàyyi fa journaliste yi ñëw ci pale fii toog mm-hmm. replier <laughs> nest kon mënoo génnee ci gestion wu Macky Sall Amadou Ba munta ne mburu foofu ko farin tey boo nee jomaayee Sonko neen mag yi dëgg la li tax ñu xuloo nag ñoom ñoo ko xam peut-être que seen ay intérêt dañu am conflit ci seen biir léegi boo nee tey euh, Macky def na lii mën nga cee génne Amadou Amadou mu nekkoon premier ministre de mm-hmm. waaw tey boo nee Diomaye def na lii mun nga cee génne Sonko. mooy premier ministre. choix candidat tey su ñu waxee def naa lii yow duñ la ci génne. waaw choix candidat yi laa ndax moom euh, il est comptable loolu du question bi loolu du laaj bi forcément képp ku ah, àndoon Macky Sall ah. moo xam ñu jox la ay poste responsable ah, moo xam nga soutenir sa politique mm-hmm. euh, benn la dëgg la mais man fi ma waxee mooy choix wu bu ñu dem compétition ban compétition ñii ne Amadou Ba ñii ne non mu waru mën a doon Amadou Ba fii gisoon nga fi même débat bi ñu doon wax ni Amadou Ba dafa wàlliyaan si du APR de souche. Mhm. ñi ko doon wax mooy ñi jàppoon ni ñoom bi APR di sos ñoo fi nekkoon Abdou Mbow ak ña mu àndal ñu naan wuy Abdoulaye Daouda Diallo nangam yu mel noonu. moom laa la wax manal tey bu ñu demee ba ne ah kon de choix bi ñu ci Amadou Ba li mu joxe mooy 35 pour cent ñu jëm ci ay législatives yoo xam ne système raw gàddu la nañu defarwaat. ñu am seen stratégie at. attention ki ñuy wax. dégg nga li nga wax xam nga lan la système daw gàddu ñu xool nag xoolal évaluer seen i force ak seen i faiblesse ci ci département yi ba ne ah yaakaar nañ ne diw de ni mu entretenir base bi ah, moom bu ñu demee ci élection yi mën ci génn la ko fay waaw génn non man li ma nekk dama nekk ci ay ay nga nekk demal rek rek déglu yaa ngi dégg yooyu yëpp ñu xool ba kii ba ne ah Macky Sall bu ñu ko defee tête de liste de xëy na moo doon gën keneen ku dul ñoom xëy na ñoom def nañ seen cuisine interne boobu noonu Euh, mais ni ngeen waxee da ngeen jàpp daal ak lu mënti xew ak schéma bu ñu mënti indi résultat bi du soppeeku. waaw man xam lu ma jàpp man hmm. waxaluma yéen de man laa wax man ak résultat lu mënti jàpp man jàpp naa ne ñi fi ne ñooy am majorité xanaa man la concerné. <laughs> mu neex la man la concerné. mu naqadi la man la concerné man maa jàpp ne ñi fi nekk ñooy am majorité. Macky Sall nag li ma la waxoon laa lay wax tawax tàngee weesul nga génne président de la république di fi ñëwaat di nekk tête de député jóge ca GP. Hmm. ñëwaat nekk député. ñu jël la teg la tête de loolu man jàpp naa ne toroxtaange la gis nga président yi fi jóge yëpp xoolal seen mujj gu rafet di nga mujj gu rafet dafa jara ñaan Abdoulaye Wade nekkoon na fi tëdd de liste en déglu ma wax la Abdoulaye Wade boo ko jël di ko takkaleeg Macky Sall la ñu sax benn du ci jëfin du ci waxin du ci doxin tëdd de liste moom ñoo ko bokk déglu ma wax la tête de liste di nga yow bu la neexee nga nekk tête de liste yow mooy tête de ah, liste neex damay nekk tête de liste ku mu neex defal sa liste dem nekk tête de liste. Ah, ci bu ngeen ko waxtaanee ba ñu xool xam ne yow yaa leen doy. mais est-ce que yow mi ñu tànn na ñoom ñoo la tànn. c'est pas ah, sénégalais yi defuñu def sénégalais yi tànnuñu def ko tête de de. ñi mu àndal ñoo ko jàpp jël ko def ko tête de liste seen ànd boobu nekkul ànd bu dëggu ay dóorkat kese lañu moo leen ko sant sax. ma ne ay dóorkat yu daña la jël ka nga xam ne moo ci gën a mag def ko tête de liste man loolu laa jàpp. sénégalais yi jëluñu may leen li ñuy sàkku si yow la am chance ak ci sa xalaat waaye man ak yeneen i jàpp nañu ne Macky Sall mënu leen apporter dara nërmeelu mooy nga jël Macky Sall la def ko tête de liste. nañu yónni yàgg. la ah, yàgg a ngi ñëw. waaw nañu yónni yàgg ñu dem kii King Fahd Palace mel na am na yu fa yëngu muy kaa bu mujj bi. yëngu mooy ma jàmbat mi daan jàmbati moo xëy démb ci kanamu askanu Sénégal yëpp daf ko sax gonte. Ah. ne leen euh, président Bassirou ay fay dafa ameel ay koppar. King Fahd Palace King Fahd Palace ci séjour boobu nga xam ne def na ko fa après les élections présidentielles. ñu ñu ñu ñu ñu def tuuti ci ay simili Pierre Mbow ma ne te King Fahd Palace bind ab communiqué jébbal ko waa Seneweb ne leen ci jamono jii ñuy wax ak yéen muy fa ko jàmb bindee président de la république ameelul 15 hôtel bii di King fat Palace maanaam Madiambal dafa wax ay kàddu yu dul dëgg monsieur Pierre Mbow rétablir la vérité te wax dëgg yàlla dul bees comme d'habitude Hmm. te te waaw hmm. président Bassirou fay Faye weddi ma Madiambal Diagne laata muy wax propos yi. ci naka eggali